président UNACOIS moo moo initié jotaay bii tey ci suba li mu ci jublu mooy damu na mu taxawoon woon ci première vague bi jàppale gouvernement bi ci xeex bi noonu la fas yéene taxawee ci deuxième vague bi te deuxième vague bi indi nag campagne de vaccination mu coïncider avec la relance économique ñu jàpp ne kenn mënu la relancer économie kenn mënu la relancer jënd ak jaay te acteurs yi koy def ak consommateur yi ko yittewoo ñoom ñëpp amuñu seen wér yaram te liy joxe wér yaram ci jamono jii dara ëpp ci solo vaccination moo tax moom ci boppam mu joxe exemple bi euh, joxe loxoom ñu vacciné ko euh, président bi jiite jigéen ñi joxe loxoom ñu vacci ko vacciné ko président bi jiite ndaw ñi joxe loxoom ñu vacciné ko loolu nag li mu ci jublu lancé na appel à tous les responsables de l'UNACOIS sur toute l'étendue du territoire fépp fu ñu mën a nekk ci région yi ci département yi ci commune yi ak ci biir ville yeeg village yi fépp incha allah danañu mobiliser wu pour def seen vaccination parce que dañu bëgg nag koom-koom bi yëkkatikuwaat réew mi amaat jàmm amaat stabilité ñu mën a am croissance. bien que perte nañu sax lu ëpp 500 milliards ci secteur du commerce loolu lu wér la ci ci ci ci première vague bi dafa yéenewul coono biñ ci am ak liñ ci perte ñu pertaat ko ci deuxième vague bi. moo tax mu taxaw temb ci commerçant yëpp ak opérateur économique yi dem vacciné wu vacciner seen i njaboot ak seen i am di jàmb pour que relance bi mën a nekk une relance réussie balaa nga naan naam da fay da koy da nga koy tal da nga fay nekk donc biral na ko ci kàddoom gannaaw bu bu fekkee ne nag jàpp na ne bu fekkee ne ñëpp vacciné wu loolu dana yokk stabilité bi nga xam ne mooy tax commerçant yi mën a sàkkuwaat bénéfice ak profit bi nga xam ne moo jaadu nag ci seen i activité parce que kenn jaayul di perte waaye perte bii ñu jot am kenn du ko répercuté ci benn prix UNACOIS santaane wu ko président du ko encouragé parce que premier accord bi mu bi mu njëkk am ak gouvernement bi en 2012 accord la bu mu am pour la lutte contre l'inflation des prix donc mu ngi ciy profité moom ci turu président maa ngi koy wax ci turu président ak mbo ak bureau exécutif UNACOIS ak commerçant yépp incha allah ci koor gi ñuy dég dégmal UNACOIS ngi encouragé commerçant yi yëpp pare na pour taxawu leen ci wàllu financement taxawu leen pour ñu am marchandise pour que approvisionnement bu marché bi jàppandi ba benn prix du yokk loolu daal yéene la joo xam ne président am na ko te yemul ci yéene mu ngi ciy liggéey donc liggéey na ci ak Ecobank liggéey na ci ak yeneen i partenaires ba nga xam ne bépp commerçant bu yittewoo euh, financement bu jàppandi pour mën a am am marchandise moo xam produit alimentaire wala non alimentaire approvisionné mën a liggéey ci koor gi ak lu lu romb koor loolu mën naa nekk donc pas d'affolement incha allah ñu ngi ñaan yàlla wóor ci jàmm ak salaam génn ci ci jàmm.